yeewu leen dafa indi koo xamante ne dafay waxtaaneek ak ñun ci wàllu wergu yaram. mais noonu ni ñu ko waxee rek bijou waxoon nañ ko sànq xam naa euh, waxtu bi daf ñuy xoj mais on va quand même essayer de de, de résumer. Mhm. voilà comme on euh, tey ki ñu dalal mooy ki nga xamante ne rek moom mooy docteur Aloyse bu SNEPS waaye tamit euh, moom la ñu porté récemment wax naa ko à la tête du réseau de la communication en santé de la CEDEAO mi ngi nii sax taxaw docteur. nuyu nañu la. mi ngi noonu Bijou comme ni ma ko waxee xam nga tey moom du sax euh, feebar la ñuy waxtaanee mais plutôt communication la ñuy waxtaanee ci wàllu santé. parce que mm-hmm. euh, loo gis ci àdduna. communication da ci am solo donc santé aussi bu ñu ko waxee il faut ñu wax communication lan mooy communication ci wàllu santé lan mooy njariñ li euh, ndax dafa am ay forme de communication ndax nee nañ communication boobu sax moom mooy aider souvent euh, suñu décideurs yi ci wàllu euh, santé ak politique yi ñu ciy tëral ngir lépp mën a yemb docteur Diouf xam naa rek dañ lay laaj laaj bu njëkk nga yëngu ci wàllu communication yow yaay directeur bu service national de l'information et de la communication pour ci CEDEAO euh, laaj bu njëkk bi rek communication ni ma ko waxee lan mooy communication tey bu ñu ko def ci wàllu wér-gu-yaram. waaw jërëjëf xam nga ci wàllum wér-gu-yaram euh, baax na ñuy weccoog xalaat ak askan wi baax na ñuy weccoog xalaat ak euh, ñi nga xam ne dañu am jàngoro maanaam docteur bu nekkee ci biir. Euh, structure de santé mu mën a waxtaan ak euh, malaat bi ñun ñi tamit ci suñu wàllu sensibilisation bu ñu buggee nit ñi aar seen euh, seen yaram ñu mën a waxtaan ak ñoom ci yenn comportement yoo xam ne baax na pour ñu préserver seen santé moo waral ñu fësal communication ci suñu liggéey mais communication bi nag dafa am ñaari fànn ci ministère de la santé de l'action maanaam mooy li euh, ministère bi di liggéeyal askan wi xam nga booy liggéeyal nit. boo buggee ëllëg li nga fa bàyyi mu approprier ko def ko moomel. baax na nga waxtaan ak moom ci li nga fi nga jëm. baax na aussi nga waxtaan ak moom ba xam moom li mu bëgg ndax liggéey bi ngeen mën bokk defandoo liggéey bi donc communication institutionnelle boobu di wane li ministère bi di def di di di waxtaan ak askan wi ci projet yi nga xam ne Euh, ñu ngi koy waajal yooyu ministère de la santé benn fan la ci communication beneen bi nag mooy bi nga xam ne SNEPS e moom lay dawal mooy communication pour changement de comportement euh, dañu gis ne feebar yu bari jàng jàngoro yu bari rawatina fii ci Afrique comportement moo ko lal comportement bu bon moo ko lal bu ñu xoolee da ngeen di dégg toujours ñu ngi nii ci jamono yoo xam ne jamono feebaru Apollo la mm-hmm. euh, gis ngeen ne lu ci bari ñàkk set ba léegi chaque jour ñu ngi wax askan wi ñuy raxas suñu loxo ak ndox ak saabu waaye nag jot na ñu dépassé stade boobu demaat beneen stade donc moo tax suñu communication boobu ak askan wi dañ koy basé si ay évidence mm. communication comportement parce que mënoo xëy rek ne nit ki raxasal lox sa loxo ak ndox ak saabu il faut nga xam comportement bii mu am lan moo ko lal pour que nga mun a joxe message boo xam ne dina mën a modifier corriger comportement mhm. donc ñaari forme yooyu la ñuy utiliser ministère de la santé di utiliser média yi mais aussi di utiliser yeneen euh, hors média di utiliser yeneen espace comme ay foire ak yeneen yeneen euh, mais mais, mais docteur parfois damay am impression bi dafa des ndaxte par exemple bu xool couverture maladie universelle bi euh, man mi ci sama bopp ak yeneen sénégalais yu ci bëri xamuñu naka ngay def pour am ko naka ngay def dans quel la lay couvrir ak boo demee lan ak lan nga war a yóbbu pour am ko te comme par exemple bu dee am na ay feebar yoo xam ne tàmm nañ ko gis comme Apollo dinañ ci wax ba ñëpp dégg ko mais am na yoo xamante ne boo demee hôpital rek laaj sa médecin ci ngay yëg ne lii am na ak nii laa ko war a mun a protéger woo lan moo tax information bi du jàll fépp ak canaux yi ngeen di utiliser yëpp waaw xam nga euh, bu ñu jëlee couverture maladie universelle dafay projet bu mag boo xam ne président de la république moo ko tegal askan bi mm-hmm. donc war nañu fexe ñun ñi ministère de la santé ànd ak agence couverture maladie universelle ba askan wi xam li mbëbëtu président de la république pour ñoom moo tax boo waxee communication bi des na ñun ñi constaté nañ ne war nañu defaat ay jéego mm-hmm. am na lu ñu def mais war nañ ko gën a yokk parce que li gën a am solo ci politique santé mooy fexe ba yow mi ko initier nga mën cee génn askan wi def ko moomeel ba pare dooleel ko. donc loolu dafa laaj ñu am communication boo xam ne dañ koy gën a développer te defe naa euh, ministère de la santé mu ngi développer ay stratégie pour que ñu gën a yokk communication boobu boo jógee ci wàllu hôpitaux yi am na yoo xam ne aussi ñu ngi koy dégg ci rajo yi. da toog ci rajo nga dégg ñu ne la ah kii de dem na hôpital tey jëluñ ko bu baax. urgence yi traité wuñ ko bu baax. surtout loolu li koy dégg euh, loolu dañuy dem léegi man bu ma génnee fii maa ngi waa ministère la santé ñu ngi sali ci atelier pour loolu mais dama bëgg aussi ñu xam leen. dugg ci urgence tey jeudi. Mhm. benn nit wala ñaari nit dem ci rajo. am na 28 yoo xam ne quand jël nañ leen en charge. waaw donte donte am na loo xam ne ñu. ci ñi nga xam ne dem nañu hôpital geren traité nañ leen te waxuñu dara donc benn ñun. dinañu liggéey pour que comportement personnel de santé ñu améliorer ko dinañ liggéey pour que infrastructure yi ñu ñu gën koo dooleel mais nag il faut aussi que ñu reconnaître que am na ñoo xam ne ils sont bien pris en charge quand ils vont aux urgences mais je nous ne nions pas ñun bañuñu ne am na difficulté moo tax ñu ciy def ay jéego boo gisee léegi hôpitaux yi ñu ngi def ay bureau ak orientation mais mhm. comportement bi mën na am samp nañ bi il faut que aussi ñu taxaw si mais loolu fépp la mais bureau yi mën nañ ko fa samp mais nit ñi nit ñi tuuti mer xatar tuuti xatar tuuti. mais dara laaj na hôpital ko boo ñëwee am ku la dalal tuuti waxtaan ak yow sa xel dal balaa ngaa sax au moins médecin di la di la laal. xam nga yokk tamit. xam nga da nga wax léegi nga ne communication pour le comportement changement du comportement mais. Euh, ngeen accès ko ci population bi mais faw ngeen accès ko tamit ci personnel de santé. surtout parce que dafa nekk loo xamante ne du benn du ñaar du ñett man dund naa ko keneen ak. keneen ak keneen dund ko li nga wax je pense que nga baal ma eggali munoo euh, il faut. il faut que yéen euh, ngeen jéem a jàppale askan wi nga xamante ne dañu ñëw ak angoisse ak euh, stress ak lépp pour faju ak pour xam te duñu am accueil bi wax je pense que loolu mooy lu njëkk lu personnel de santé wax a pour dalal pour dalal euh, malade c'est pas yenn structures yi yenn hôpitaux yi ñan lay teeroon yi waaw privé yi franchement c'est-à-dire si je veux donner l'espèce humaine nature humaine nature humaine moo am ay défauts maintenant selon secteur bi ngay liggéeyee muy mhm. secteur hôpital dafa gën a sensible mhm. maanaam bu nga dem mun nga dem ci supermarché ñu duñ la accueillir bu baax mhm. mais ci secteur santé dafa metti te ñun ñii ñun ñii di ci liggéey dafa gën a metti si ñun parce que tey bu ma toggee di dem Euh, liggéey de taal sama rajo dégg benn malade wax man de biig jaar naa ci hôpital bi jaar naa ci hôpital bi traité ma mais ñun lay njëkk a metti parce que jànguñu pour que ñu ñuy suufeel mm. donc comportement personnel de santé bi def nañu suñu xel ne loolu war nañ ci liggéey mais dafa am leneen loo xam ne te da ko wax ne dañu war a waxtaan ak askan bi mm-hmm. Sénégal da ngay gis koo xam ne xëy suba teel bopp bi di metti mm-hmm. mu war a am centre de santé boo xam ne médecin mu ngi fa loolu ñun war nañ ci liggéey pour gën a informer nit ñi ci disponibilité offre de soins bi mhm. centre de santé baa ngi nii ci wetam mu am médecin mu bàyyi centre de santé bi dem ba hôpital mais parce que centre de ma jeexal ma jeexal ma jeexal bu cinquante personne defee noonu mhm. alors que hôpital selon pyramide offre de soins bi maladie yi gën a avancé la war a jël en charge day créer embouteillage embouteillage boobu nag souvent mooy indi situation yooyu donc il faut que ñu waxtaan ak personnel de santé bi benn mais il faut que ñu waxtaan aussi ak askan wi bu wax leen ne structure de santé yi ñuy teg muy structure de santé de proximité pour ñoom la mhm. loolu bu ñu ko defee parce que gis nga bu ñu nax suñu bopp keneen du jóge bitim réew du ñu defaral suñu système de santé mhm. ñun personnel de santé ak ñun askanu Sénégal ñoo mun bonifier suñu suñu système de santé il faut ñu waxtaan ku nekk xam lan moo ciy sawar nga dox ko. mais centre de santé yi yaa ngi ne population bi lañ ko fi tegal pour mu gën leen jege c'est clair mais ku ci nekk da ci am expérience boo xamante ne moo lay ragaloo man mii di wax ak yow am naa ci ñaar yoo xamante ne bu ma bu kenn feebaratee feneen lañ ko yóbbu sama petite sœur dañ ko piqûre tànk bi néewi sama bàjjan bët bi moom lañ def tuufaay boo xamante ne euh, warula ànd ak bët bi malheureusement dañ ko dindi léegi parce que dafa amoon infection donc boo demee ci poste de santé nga am ci ci benn famille parce que da ngay ragal te population bi vision boobu la ñu am ci poste de santé yi ils que euh, médecins yi fa nekk soit mënuñu wala ay stagiaires lañ fay teg wala formation bi doyul euh, info euh, idée boobu la ñu am ci poste de santé yi. Bijou man mii di wax ak yow. maa ngi woon district sanitaire Mbour. Mhm. nekkoon médecin chef district Mbour. Mhm. nekkoon médecin chef centre de santé. bañuñu parce que ñun dañ dafa am loo xam ne ministre de la santé daf ñu koy wax nee na lépp loo xam ne dëgg la bu leen daw dëgg wax leen dëgg mhm. dëgg bi mooy am na foo xam ne di nga fa dem mu am parfois si act bi ñuy posé mu am erreur mhm. loolu dañ koy nangu mais nag fu mu amee benn erreur ñaari erreur am na au moins cinquante soixante bu actu yu baax. yoo xam ne baax parce que centre de santé yooyu ngay wax ne yow dama too fa xëy na parce que am na loo fa lu la fa gi am na ñu fay dem. mais santé tam te dafa am loo xam ne aussi dafa am solo. Mhm. gis nga hôpital boo xëyee dem hôpital li ngay fay ci ticket pour feebar boo xam boo toogoon centre de santé c'est tu payes plus cher. di nga déplacé wu fayaat. taxi dem fay hôpital lu gën a cher rang rang bu gën a gudd alors que boo yemoon centre de santé nga gis médecin bi xëy na di nga fay ticket modérateur bu 500 francs te doo doo fay loolu donc tout n'est pas parfait mais c'est ñun ñëpp a ko war a defandoo il faut pas que il faut <laughs> en rubrique jàmbur la waaw c'est vrai ñun ñoo ngi wax rek. mais c'est intéressant c'est intéressant il faut pas damay wax il faut pas parce que personnel de santé ñu ngi ci biir kër yi. ñu ngi sa kër ñu ngi sama kër. donc il faut pas que ñuy toog ne système de santé moo baax ñun ñëpp nañ war a jàpp ci système de santé ñun li ñu ci war xam nañ ko. li nga xam ne nag. war na ci askan wi il faut que ñu doon baax pour. yow Pape Cheikh da waroon a yóbbaale congé yow. dañuy def ay fautes dañuy seen patients yi est-ce am ay sanctions yoo xamante ne ñoom nga leen di teg est-ce que am ngeen wala bu ñu ci maltraité aussi patient y a pas a pas photo après dañuy continuer fenn non xam nga xam nga xam nga tey. ba pare fay loo xam nga tey bu la directeur des programmes du sanctionné duñ ko siwal ah duñ ko siwal lu toll ni ministère de la santé bu ñu defee faute. dafa am loo xam même ci décès maternel. mais du ma ko defaat du ma am way bi mortalité maternelle même ci décès maternel. tey mm-hmm. boo demee région médicale Kédougou ñu ngi def audit décès maternel yi am ci région bi yëpp. Mm-hmm. après bu ñu xamee faute yi am na sanction mais sanction c'est pas fait pour que ñu aussi ñu koy teg. léegi bu ñu defee fenn ñun fan lañ leen di boole. am tuuti ngeen noppi rubrique bi comme que bëggoo leen dem ci rajo yi wala di dem ci feneen di ko fa nettali yéen di ngeen bëgg ñu ci waxtaan ak yéen non ñu nit di dem ci rajo yi xam nga rajo yi rajo yi télé yi de day avancé loo. jox ma scotch parce que xam nga kan mooy bañ nit ñi di dem ci rajo mooy ki nga xam defoo dara. mais ñun dafa am loo xam ne ay jéego ñu ngi koy dox jéego yi nag waxuñu ne lépp baax na. am na yoo xam ne il faut ñu corriger ko te buñ koy buñ ko bëggee corriger il faut ñu ànd ak. population population yi dafa am ay canaux yoo xam ne mooy média yi mooy rajo yi mooy télé yi foofu lañ mun jàllale seen xalaat donc ñun nous sommes ouverts à ce que population askan bi di jàllale foofu seen xalaat ñuy corriger tey moom tey je suis je suis contente parce que parce que communication ñoom ñëpp ku ci nekk xam naa ni non non da nga am ay questions yu parce que ñoom daf leen intéressé ñoom aussi communication bi ku ci nekk moo tax ma ne tey moom vraiment nous allons poser les questions ensemble bàyyi ku nekk joxe sa xalaat je crois que intéressant pour nit ñi xam vraiment communication euh, maanaam nu mu amee solo ci wàllu euh, santé docteur ñu lay remercier mais rek nga tënkal ma très rapidement communication la ñu wax ak solo si nga xamante ni am na ko ci wér-gu-yaram tey jii lan nga jàpp ne war nañ ko renforcer dooleel ko pour que wér-gu-yaram bi ci Sénégal vraiment mu gën a mën a jëm kanam tey jii ñu yeneen réew yi nga xamante ne moom la ñuy roy ci wàllu wér-gu-yaram ñu mën a egg foofu lu ñu war a renforcer ci wàllum communication xam nga communication def naa yéen xam ngeen ko dafa am njëg dafa am coût. Mm-hmm. loolu déjà war nañu gën a dooleel ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum communication ci santé mais dañu dañuy dañuy bëgg aussi mm-hmm. jël santé bi def ko dans un cadre global. Mm-hmm. damay wax léegi ne euh, dañu tàmm di wax fii Sénégal ci jamono jamonoy Ebola ñu doon wax raxas seen seen loxo ak ndox ak saabu mais am na dëkk yoo xam ne boo demee. disponibilité ndox mi sax sa pose problème donc amul ndox dara santé santé tey il faut que mu am une approche beaucoup plus euh, globale mm-hmm. ci wàllum santé végétale gis nañu agriculteurs yi bu ñu defee yenn engrais yu bari yan impact la mun a am ci santé nit ñi santé animale gis nañu aussi euh, consommation yenn denrées impropres impropres donc approche globale boobu il faut que ñu dugal ko aussi si wàllum communication te ñu ngi ciy euh, am na benn euh, réunion boo xam mu ngi waaj am ci fan yi muy One Health euh, pour que ñun ñëpp lëkkaloo mën a waxtaan ci communication mën a waxtaan ci santé bi ci wàllum waa CEDEAO aussi gis nañ ne il faut que ñu gën a informer da ngay toog benn dëkk bu toll bu mel nii damay bañ a citer dëkk mais dëkk bu nekk sous région am benn problème santé balaa ñun ñi bokk ak moom sous région bi di ko yëg information bi jógee bitim réew. alors que ñun war ñu mën a gën a développer. échange yi gën a développer donc ci loolu la ñuy liggéey. chantier bu rëy la mais il faut que ñëpp mm-hmm. jàpp si. Mm-hmm. mais rafetlu aussi lii ngeen di def nii parce que lii émission rubrique waxal de moo ma gënal suñ ki nga xam ne dafay toog ubbi internet. ñëw joxe ay information ci santé alors que information yi duñ ko adapté à notre mm-hmm. donc il faut que. d'abord nous les acteurs de la santé ñu nangu ñëw ci plateau yu mel ni di mhm. échanger pour askan wi xam li émission pour permettre aussi askan wi muy échanger am une plateforme bu muy échanger merci yow également sant nañu la vraiment ci ci ci ci disponibilité bi merci beaucoup. docteur bàyyi fi sa numéro femme nee na bu dematee feneen. bu ñu ko defee dara mu mun la woo merci beaucoup. merci beaucoup Fatou Kiné Deme li ngay indi c'est très intéressant je communication ci santé ñun ñëpp la soxal ba tax na sa rubrique bi sax dañ ko mujjee xëcc ci yow <laughs> euh, mais yéen ñooñu ci ginnaaw li ngeen def laa fi gën a bañ toog di waxtaan di ree nii rek te xaw ma li ngeen di ree sms leen ma ko di ñu xool boole ça se fait pas da di yow li waroo koo jiite sax man damaa dañ kumpa ko leen di ree ci ay satu ngeen nekk waa léegi sms leen ma li ngeen di ree sarax leen ma ngir a hmm. a fésal ci kaw SMS leen ma man waxuma dama koy wax ci caabi ay waxu suuf la ñu jàll ci beneen